kaa am na de fi mu ne ku ci amoon tension si xel bekk suukar damay laajte Sénégal pays la wala quartier fi mu ne réew mee jaxasoo bu ñëpp di xeex xaw ma kuy àtte influenceurs yi di xeex seen biir jaaykatu diw yi di xeex seen biir jaaykatu produit fes yi di xeex seen biir mbër yi di xeex seen biir artistes yi di xeex seen biir borom natt yi di xeex seen biir animateurs yi di xeex seen biir journalistes nag kaaw journalistes yi laa wàcc tey gannaaw ba ñu te def rasaya gannaaw ba mu génnee bi nag la Papa naa multiplié de joie de vivre da ko protéger actualité bi fu ma romb def na ci comédie te vexewul kenn actualité bi mu am nag du dee naqar benn waay bu am ñetti jabar la ñett ñëpp nekk aawo da ngeen bi ngeen di challenge semblant laa ko jàppee ci dese la ñu nekkoon yéen daal di ngeen fexe ba créer guerre ci diggante animateur bi xaritu rappeur bi xale bi tey liggéey ca télé et pourtant ñaar ñu responsable kon liste man dama yaakaar ne ki leen defaral bayre da cee fàttee boo leen muslaay encore ma frappé porte bi ne ko na ca ñaar ñi ba tudd peleen alay nee nañ ko bëgg nañ la waaye dangaa bari histoire pourtant am na animateur bu waxoon day def jubóole national ci diggante ñetti influenceuse yi ma frappé porte bi ne ko ak sëtu tëggkat bi ak xaritu ñag yi comédien ba du liggéey ca télé bu mag ba génn na wax na ay bal moom daal Baldé waxoon li ñag nag ca ràmba la jëm buñ ci teelu jóg nag dina ëpp loxo xale yi nee kenn du leen noppiloo ci kaawu tataanaabee kiraa ma ne ko yaa moom suñu ñu ko jox yaa ko jëndee yaayu jàmbur yi ne yaayu kiraa lañ taf fas yéene koo jaxaseeg sénégalais franchement nag yaayam amul woon place ci débat bi te ba problème bi amee ba tey ñett ñi ko séq gisuñ ci kenn ku ci def interview ngeen ne doomu Koungheul bi daa bokkoon ci ramu Badou bi ngeen ne doomu Koungheul bi ak Badou tigi dégguma da ngeen doomu Koungheul bi bokkoon na ci jabaru Badou yi xaarama daw Guinée organiser fa foire